beaucoup. vraiment comme ni ñu koy waxee les mots me manquent pour exprimer combien je suis très content très ému pour la population de Kër Moussa leen di nuyu population Kër Moussa di tàmbalee ci nuyoo bi les imams muy imam yi chef de village yi jigéen ñi góor ñi ak responsable politique yépp di nuyu di gërëm le représentant du président de la République à l'occurrence notre frère et ami le ministre d'État monsieur Mbaye Ndiaye su ma ko cité cité na l'ensemble de la délégation qui compagne di nuyu suñu jigéenu bopp madame Marième bajaan di nuyu Mor Ngom Abdou Ndéné Sall xam naa sàll bi moo tax ma fonk ko tuuti ndax ab tukulóor la te it am na tukulóor bu ma yore di nuyu Ibrahima Ndoy di nuyu monsieur Augustin Tine mi nga xam ne moo fi jóge léegi te président de la république woo ko di nuyu l'ensemble de maires di département yi nga xam ne man ñoom ñoo bokk liggéey bi mais également di nuyu yeneen maire yi nga xam ne ñëw nañu fi ma mën ciy tudd Ousmane Sarr jóge Chérif Lo mais kenn koo xam ne man ak moom li ñu boole dafa bëri muy Alioune sàmba Ciss c'est le maire de Diass nga xam ne man ak moom ñoo séq benn projet bu mag bu ñu tuddee AIBD aéroport international Blaise Diagne di nuyu ci foofu laay jaare le directeur général de l'AIBD monsieur Abdoulaye Mbodj nga xam ne wax dëgg yàlla ameel nañ ko cant amel nañ ko ngërëm moom ak personnel bi mu àndal yépp di nuyu responsable politique yi nga xam ne joge nañu Thiès joge feneen te am ñu ci cité ñu ci mel ne suñu jigéenu bopp aji jaata mu ngi fi ku ci mel ne ñi nga xamante ne aussi délégation wu na Alassane Sall ñu ngi fi di nuyu suñu frère Ousseynou Diouf mu ngi fi di nuyu aussi koo xamante ne kenn la ci ñun muy le docteur Pape Amadou Ndiaye vraiment tey euh, discours bi nga xam ne moom la ñu bindoon dañ ko mujjee lem monsieur le ministre d'État dugal ko ci suñu poste pourquoi dañu fi gis loo xam ne li mu mën a àndal te ñu yaakaar ne mooy li gën mooy sant ak gërëm population bi nga xam ne bi ñu wootee ñoom ñëpp wuyu si nañu nga wax président de la république la mu ñu waxoon day def na ko ndax moom moo sàkk woon ci ñun meeting bii ñu tenir ko mu amoon yéene teewal ci boppam nga xam ne du yónni kenn mooy ñëwal boppam mais ku ci ne xam na charge président de la république yi nga xam ne moo tegu ci kawam am na loo xamante ne su ko bëggee itam du ko mën ndax ku ci ne xam na ne jamono yi ñu toll ñu ngi nekk ci waajal sommet union af union bi nga xam ne war na am ca Rwanda te moom war fa teew parce que mu nekk kilifa goo xamante ne ci biir Afrique dara mënul xew mu wuute ko waaye la mu waxoon moo di ne su ma demee ba nga xam ne mënumaa teew dinaa yónni sama tànk yónni sama xel yónni sama bët yónni sama làmmiñ te gis nañu ne lu ëpp juróomi ministre ba ci juróom benn ministre teew nañu fii teewal ko fi bon nga ne président de la république ñun ñàkk a kontaan nañu ci ndax pourquoi ñu ne kontaan nañu ci ndax ñi mu yebal mët nañu ndaw bu baax a baax a baax ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko sant di ko gërëm ci ndimbal li nga xam ne aussi jàppale nañu ba tey jii ñu mën a taxawal meeting bii nga xam ne moom lañu fi taxawal nga xamante ne 36 villages yëpp fii ba Thiès ak yeneen dëkk yëpp ñu ngi fi teew ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp ngërëm li nag dinaa ko mujje jëme ko ci ñi nga xam ne mooy samay proche collaborateur rawatina conseil yi nga xam ne décidé nañu ànd ak man pour soutenir le président Macky Sall pourquoi monsieur le ministre d'État il y a de cela les mots deux ans Mor Ngom est témoin le président de la République recevoir na ma benn yoon ñaari yoon ñetti yoon quatrième fois bi ba may dem dama ne lu amul seede baaxul dama fab kenn ci samay conseiller ànd ak moom muy bugguma combaan bii ñu dem toog ak président waxtaan ak moom keroog laa ko ne ginnaaw tey jox naa la loxo fas yéene laa jàppale waaye jàppale gi itam du ma ko def man rek ndax dafa am ñu ma àndal ndax man benn carte rek laa am président il faut ma waxtaan ak samay nit bi ma ñëwee waxtaan naak les imams waxtaan ak chef de village góor ñi jigéen ñi ndaw ñi conseil yi nga xam ne ñoo ma déggal ñoom ñëpp accepté nañu ànd ak man à partir d'aujourd'hui ñëw ànd ak responsable APR yi fi nekk pour mën a liggéey falaat président Macky Sall en 2019 au premier tour te loolu yaakaar naa ne bu ñu ko waxee xel war na ko mën a nangu parce que fekk nañ fi ay responsable monsieur le ministre d'État il faut ñu citer leen parce que dafa am lu ma waxoon président ma ci Sall ba mu ma wooyee pour ma jàppale ko dama ne ko fële ma nekk muy Kër Moussa boo fa amoon benn carte itam du man ndax man sama pexe bu juboon doo falo lii laa ko wax bon responsable ya fa ya fa am noo leen di def mu noppi ba ci yàgg mu ne ma wax ñoom ñu ñëw ànd ak yow topp sa ginnaaw ngeen ànd liggéey responsable yooyu aussi ñu dégg ndigal lañu mun naa ci citer le colonel Mansour Mbout xam naa am na lu ko téq moo tax ñëwul mën naa ci citer Pa Gueye muy góor gi Mamadou Gueye mun naa ciy citer le jeune Gabriel Marie Bopp mention spéciale à ce jeune là parce que vraiment ñoom ñëpp laxasoo nañu ñëw xamal ma ne li président Macky Sall wax moom la def duñ ci teggi benn baat dañuy ñëw ànd yow liggéey ci loolu la ñu ba référendum bi passé yàlla may ñu ci ndam loo xam ne kawe na suñu njort te yaakaar naa loolu mooy continuer ndax ñun xamuñu defet gagné rek la ñu xam moom rek lañu ñu xam te loolu lañu bëgg a teg ci loxo président Macky Sall leneen li ci topp ginnaaw bu ma gërëmee sama conseil yi gërëm chef de village yi jigéen ñi góor ñi mag ñi ndaw ñi gërëm aussi imaam yi waaye gërëm sama njabootu bokk parce que nag dañu wax ne tubaab yi dañuy wax ne euh, derrière chaque grand homme il y a dame mais man damay wax ne à côté à côté à côté de chaque grand homme il y a des grandes dames way ndax nag ndax nag ba ñuy wax tere laalo ja doon na ca dara waaw te nag jàppale nañu ma topp nañ sama ginnaaw sama jarbaat bii mu ngi reetaan sa yumpaañ yi xaw ma sant leen gërëm leen di sant itam ñi comité d'organisation du ma cité kenn nag ñu baal ma du ma cité kenn mais comité d'organisation bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ndax fii ma taxaw tey maa ngi nii di fi soog a taxaw depuis ay fan nii ñu ngi fi xaw ma woon sax béréb bi ni mu bi ma ñëwee dama tiis sax ci organisation bi nga xam ne def nañu ko donc ñu ngi leen di sant di leen gërëm di gërëm aussi ñi nga xam ne li ñuy wax muy kàddu yi ñuy wax ñoo koy jàllale muy presse bi ñu leen di sant di leen gërëm di gërëm ñëpp vraiment tey suñu kàddu monsieur le ministre d'État mooy gërëmaate gërëm population Kër Moussa yëpp santa leen gërëm leen duñu fi wax benn doléance ndax doléance yëpp gis nañ ko xam nañu ko bind nañu ko te it kañu ko digaaleel xam nañ ne lu mu ñu wax mu def ko muy la président Macky Sall ndax lépp lu mu ñu mës a wax def na ko ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullah jigéen ñi moom mention spéciale voilà